di leen jottali aussi nuyoo président Thierno Lo di sant mboolem militant responsable yi nga xam ni noo fi teew ndax tey jii du meeting mais dañu ne nañu dajale responsable de secteur yi femmes yi jeunes yi cadres yi fi nga xam ne ñoo fi nekk ñu amal réunion boo xam ne nii dinañ ci jàngat ci lu gàtt tolluwaay bi nga xam ne mooy tolluwaay réew mi moo tax ñu ni ginnaaw bu ñu defee réunion bi pare dinañ jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi joxe suñu xalaat aussi ci tolluwaayu Sénégal li nga xam ni moom la parti APD njëkk a bëgg a xamle mooy réew mi fi mu toll ngir jàmm ji ak dal gi dañuy woo mbooleem ñi nga xam ne nii ñoo doomu Sénégal ñu gën a wekk gën a wormaal suñu kilifa diine yi gën leen a fonk ndax ñoomkat ñoo ñàkk Sénégal ñooy ñagub Sénégal ca seetlu nañu ni jamono jii dafa mel ni ñu baree baree baree baree bari seen xel dafa dañ ko fëkk ba xamatuñ fan lañ war a teg yooyu dëkki diine xamatuñ fan lañ war a teg yooyu kilifa diine moo tax ñun APD li ñu bëgg a njëkk a wax mooy Sénégal lu fi mënti xew nañu continuer place ba ñu joxoon kilifa diine yi ñu wéy di leen ko jox leneen li ci topp moo di réew mi yëngu na fenn fu ci nekk ñi ngi dégg ay yëngu ñuy ñaan rek bépp doomu Sénégal nga nekk ci biir réew mi ak nga nekk ci bitim réew nga respecté àq ak yelleef doomu sénégalais maanaam li ñuy wax liberté individuelle nanga ko respecté waaye bu loolu paree tamit na nga respecté institution yi institution képp kuy républicain danga ko war a respecté moo xam opposition nga bokk moo xam pouvoir nga bokk bu loolu paree tamit ñi ngi ñaan ñëpp moo xam way politique bu mu mënti doon ak langue bu mën a féete ñu continuer respecté ñi nga xam ne ñooy way takk der yi ndax ñooñu saa yu ñu mënee tëdd nelaw ginnaaw yàlla ak ñoom ñoo tax ndax ñoo ñuy sàmm di sàmm suñu alal te ñooñu kat faruñoo kenn ñooñu kat ànduñoo kenn waaye république bi moom lañ fi nekkal ndax ki nga xam ni moo nekk tey ci pouvoir bu nekkoon tey ci opposition tamit ñi nga xam ni ñooy sàmm kaaraangeem ñoo war a doon way takk der yi muy gendarme police sapeur pompier ak yëpp yi nga xam ne dañu leen di woowee force de défense et de sécurité ñooñu dañoo mérité ñu respecté leen baax a baax a baax baax a baax a baax kon ñi ngi ñaan képp ku politique ak ku politique ñu continuer jox leen seen gëdd ndax ñoom kat seen liggéey ñu ngi koy rafetlu ci àdduna bépp rafetlu liggéeyu force de défense et de sécurité ci Sénégal. nekk nañ ci réewu Sénégal boo xam ne tamit euh, ñi yàlla dénk ñuy àttekat yi ñëpp leen naw ndax dañoo jàpp ni pouvoir judiciaire lu war a indépendant la lu indépendant la fii également ci suñu réew. kon ñoom droit la ñuy wax ca képp ku jàngul droit ak loo ci bëgg xam-xam-xam-xam mënoo sori. ndax ñoom ñoo war a atte ca atte faw borom xam-xam yi rek ñoo koy def ñu doyloo leen doyloo suñu justice ndax justis boobu boo dee opposition boo amee jafe-jafe ca moom nga jëm boo dee pouvoir boo amee jafe-jafe moom nga jëm kon bokk bu ñu leen fragiliser nañ leen may doole ca doyloo leen ci xam ne ñoom kat ñin fi nekkal mooy doomu Sénégal waruñoo seetaan ñu leen di fragiliser waruñoo seetaan ñu di leen banaliser ba nga xam ne nii lu waay jóg yàq ko way takk der yi lu waay yëkkati aussi sànni ko ñi nga xam ne nii ëllëg si biir boo amee ak jaaxle ci ñoom ngay kalaame muy fu mbaxane doone benn bu dee ci wàllu mandat ak candidature jëm ci élection présidentielle APD waxi démbam mooy waxi yàlla dafa dogal mu mas di xamle ci senegal ni conseil constitutionnel donc moo am tëggul guy ci valider wala mu invalider candidature kon ñun dañ ko cay delloo bu baax a baax a baax xamle ni confiance bi ñu amoon démb ci conseil constitutionnel confiance boobu la ñuy wéy tamit di ko am ci conseil constitutionnel ba tey saa yuñ ca àggee ñoom ñooy wax ana ñan ñoo mën a doon candidat ak ñan ñoo mënta doon candidat kon loolu mooy position parti bi nga xam ni mooy APD kon nag dafa am débat yoo li ci ëpp solo mooy débattre ci programme képp koo xam ne nii am nga yéene ni Sénégal laa bëgg a jiite am nga sañ-sañu nu tàllal sa loxo laaj ko waaye na nga ñu indi ci débat programme débat programme mooy li ëpp solo ndax sénégalais yi mën a tànn ëllëg ki nga xam ne nii moo gën ci réew mi moo tax ñun alliance pour la paix et le développement ñi nga xam nal ñëpp ni Benno Bokk Yaakaar gi nga xam ni moom la ñu bokk ci lañu des te li ñu gëm mooy Benno Bokk Yaakaar googu mooy candidat bi gën ci 2024 buñ ci yàlla yóbboo ak jàmm loolu moo tax ñuy feddali suñu ànd ak moom loolu moo tax aussi ñuy xamle ni parti bi lii liggéeyam mooy continuer liggéey bi yaatal parti bi waajal inscription yi nga xam ne nii c'est sur les listes waajal parrainage bi di wane aussi jëf ji nga xam ne nii moom la président Macky Sall jëf ci biir Sénégal di ko wane ak li nga xam ne nii war na koo dolli ñu di ci teg baaraam di ko joxoñ naan ko lii aaje na ko lii war nañ koo def lii war nañ ko sopp loolu mooy position bi nga xam ne nii aussi am nañ ko ci bu loolu weesoo ñuy xam le ni en tant que allié ñi ñaan président Macky Sall mu daal di dajale nag ñi nga xam ne ñooy ay coalition wala ay parti yi bokk ci benn bokk yaakaar daje ak ñoom ndax li ñu concerné ñun nga xam ne nii ñun ñooy APD di coalition ajana depuis bi ñu ànd ak moom en 2014 ba léegi programmé woon nañ ak moom benn audience boo xam ne nii doon nañu permettre ñu natt suñu ànd ak moom waaye dañ koo dañ koo dañ koo reporté ndax calendrier président Macky Sall boo xam ne nii événement ñëw na de cas de force majeure moo tax ñu dàqoon audience boobu. léegi nag dafa jot ñu ñaan dans les meilleurs délais le président Macky Sall ñu daje ak moom en tant que coalition et en tant que parti membre de la coalition benn Bokk Yaakaar. loolu ay kàddu la yoo xam ne nii mënuñu woon a taj suñu ay wax ca àggale wuñ ko ci beneen bi nga xam ne dinaa ko ci dolli muy dama koy wax en tant que doomu daarul muxti di ko wax aussi en tant que allié du président Macky muy suñu dëkk bii nga xam ni amuñu lu moom muy daarul muxti kàddu yiñ ci mën a gën a wax moo di leer nañu ni ki yàlla teg ci boppu dëkk bi muy sëriñ Bassirou Anta Niang yàlla na fi yàgg lool ci wér ak ñi nga xam ne ñoom la ko dénk muy chef de village yàlla na fi yàgg te wér ak porte parole yàlla nañ fi yàgg te mbooleem jéego bu ñu war a def rek def nañ mbooleem lu ñu war a wax rek wax nañ ko ñi yàlla dogal aussi ñuy ay leader politique ñu mën cee lim jàmbaar muy le président Thierno Lo lépp lu mu war a dox ngir président Macky Sall bàyyi xel Daarul Muxti dox na ko ñeneen muy autorité administrative et dox nañ seen i jéego ba yàlla dogal na président am na lu mu fi def ñu ngi ko ci sant bu baax di ko ci gërëm waaye liberté wóor mooy daarul muxti am na gëdd boo xam ne nii war nañ ko ko delloo ca ñi ngi tàllal loxo suñu allié boobu nga xam ne mooy président Macky Sall mu inscriraat daarumu si ci programme de modernisation des villes religieuses ndax dëkk bi soxla na ay yoon dëkk bi soxla na ay forage dëkk bi soxla na aussi éclairage soxla na extension ci wàllu yu ne kon ñi ngi koy tàllal loxo en tant que allié ndax bu ñu sañoon ëllëg ki si bu ñuy lim li président yi jàll def ñu mën ni président Macky Sall kenn mënu koo ci defarub daaru muxti gi ndax ñun amuñu lu dul dëkk bi ñi ngi ñaan bokk mu dégguñu te lépp loo xam ne nii dëkk bi soxla woon na ko mu diisoo ci ak kilifa yi suñu borom may ñu ñu dund ba fekke ko ba dëkk bi mel ni nga xam ne noonu lañ war a mel parce que ginnaaw yàlla ak sëriñ bi président Macky Sall moom la yàlla jox doole mu mën a jël ay tari dugal ko ci dëkk bi mu mën a ënd corniche mu wër dëkk bi kon foofu aussi ñu ko ciy fàttali di ko ñaan en tant que allié ndax ñun suñu sag la suñu lépp la dëkk bii kat suñu maam dañoo gàddaayoon ñëw fi dëkk bii kat fi lañ fas yéenee dund dund dund dund yàlla na yàgg lool ba suñu boroom moom ñu ñu dem wuy ji ñu dem wuy ji kon nag képp koo xam ne nii jàppale nañu ci suñu sag la ki nga xam ni moom la yàlla teg ci réew mi ñun moom lañ àndal kon lépp loo xam ne nii defoon na ko fi jaajëfal nañ ko waaye na bàyyiwaat xel bu baax a baax xam ne li fi des moom bari na lool bari na lool te it nag euh, ville la boo xam ni ci yoonu murit am na ci taxawaay boo xam ne nii ginnaaw Touba kenn ëppale wu ko ci ci région de Louga am na ci taxawaay boo xam ne nii kenn mënu ko cee jiitu te fépp foo xam ne nii liggéey nañu fi ñi fi ëpp tey ci wàllu politique ak ñi nga am ni askan wi président Macky Sall la àndal benn problème kay la ñu amoon mooy dans le département de Kébémer dañoo mettroon à l'écart le président Thierno mi nga xam ni yéeneem moo doon yëkkati ay ndaw ànd ak ñoom ci élection législative ànd ak ñoom ci élection locale yi wane leen waaye bu fekkoon gëdd bi nga xam ne jox nañ ko ko ci département bi jox nañ ko kon ba léegi département bi weesu na fi kon nag ñi koy invité encore une fois di ñaan ñëpp ñu boole suñu bopp ci xam ni euh, Sénégal jàmm rek moo fi bala ñuy tëj tamit dañuy jaal ak ñaanal ñi nga xam ne nii euh, manifestation yi xew suñu borom moom na leen ci waaye dara jarul ñuy taal dëkk bi ndax suñu dëkk bi amuñu lu dul moom. man la Khady Mbacké Lo responsable des femmes APD bu Darou Moussi. ndaje mi tey li ko waraloon mooy wax ci li nga xam ne moo xew ci réew mi jamono yi ñu toll muy. ñaari nit ñoo xam ne ñoom ñoo jote muy usmaan Sonko ak Mame Mbaye Niang jote biñ jote nag li ko waral mooy usmaan Sonko moom moo teg tuuma ci moroomam biñ tegee tuuma ci moroomam mu porté ko plainte ñu war a dem tribunal jàpp naa ne nag képp koo xam ne xam nga yoon xam ne buñ la woowee ci yoon dangaa war a dem wuy ji war a wuy ji nag jërut bëgg a taal am réew ndax réewum Sénégal jàmm rekk moo fi mas di am te it ki nga xam ne moom mooy Sonko nit la koo xam ne nit ku yee na la ndax buñ la woowee ci yoon nga am sa njaboot bàyyi ko ci sa kër di leen jàngaloo ji ekool teg leen ci sa wet jël ñun suñuy doom ak suñuy mbokk ne leen ñëw leen xeexle ma ñëw leen fexe ba man duma wuy yoon ñoo ñu di xeexoo di nararay seen bopp tegu ko fenn dafa war a wuy yoon ca it Ousmane Sonko waxuma la dara waaye mboolem xale yim àndal def na leen ay saagakat ñun nag amuñu lu kilifa diine yi amuñu lu suñuy waajur ca loolu yépp tey xale yi jël nañ ko teg fee ñi ngi saaga suñuy kilifa diine ca amuñu lu suñuy kilifa diine ñoom lañ am tey ñoom lañ am ëllëg ñoom lañ yaakaar àdduna ak alaaxira kon moom li mu war a def mooy wuy ji yoon li mu war a defit mooy mu woo xale yi ci xale yi dellusiwaat ci kër yi dellusiwaat ci seenum njàng teg leen ci yoon woo xam ne mooy yoon wu jub waaye am réew munoo ne danga koo bëgg a jël ba pare di yee nit ñi ci fitna na ñëpp dellusiwaat siwaat seen xel ñëpp dellusiwaat ci seeni biiri kër amuñu nag lu dul suñu kilifa diine yi xale yi ñu ngi leen di woo ci jàmm ñun waa yi di ànd ak président Mame Thierno Lo kenn mësuñoo gis ñuy saaga kenn mësuñoo gis ñu wàcc di xuloo di xiiroo di ŋaayoo li ñuy def mooy woo ñëpp ci jàmm bu ñu àggee ci ay élection képp koo xam ne bëgg ngaa fal ka nga bëgg a fal carte yi moom moo koy fal waaye du wàcc ci terrain bi di xuloo ak a yàq ay alali jàmbur ak a agressé ay nit ak a rey ay nit ca nag problème bi fu mu àgg Ousmane Sonko moo ko fa àggale gimiñ bu waxul dëgg rek wax leneen lépp mooma ndax munta ñëw nara dindi yoon teg fee ne sama yoonu bopp lay jaar dañ koo convoqué daa war a wuy ji yoon loolu moom mooy dëgg loolu moom mooy dëgg Ousmane Sonko na wuy ji yoon na wuy ji yoon ñu ngi ñaan ñépp nag yàlla musal ñu ci seytaane ak cat delloo si waat suñuy xel ñun ñëpp ba ñu ànd bokk ndey bokk bàyyi ndax ñun waa Sénégal ñoo mën a tabax Sénégal senegal nag président bu fi mas a jaar rek def nga li la war ba ci président Macky Sall kon képp ku koy jël ëllëg ak ku manti doon rek na nga ko jël ci ab yar ak i teggin na nga ko jël itam ci réew mu ànd ak dal loolu la ñuy woo ñëpp ñun waa APD ñun nag xuloowun saagawun sànnante wu ne xeer ndax xamuñu ko président Macky Sall lii moo ko moom 2014 la président Mame Thierno Lo ànd ak moom ànd ak coalition Àjjana ñu dem ànd ak président Macky Sall boobaak léegi itam lu ñu war a def lu nekk def nañ élection yu ñu dugg Thierno Lo def na ci alalam def ci xam-xamam def ci man-manam génne ay moyenam di ko def ci jigéen ñi moo ñu defal ay formation moo ñu defal ay calebasse de solidarité dindi alalam di ko def ci ñun moo ñu jox ay financement ba tey fu ñu war a àgg àgg nañ mais bu fekkee ni dëgg rek lañuy wax président Macky Sall ànd na noo moom ànd ak président maam Thierno Lo parce que na loolu lañ bëgg Thierno Lo la ñuy jàppale ku muy jàppale ku nekk danaan ànd ak moom moom lañ xam moom la ñuy jàppale waaye APD coalition Aljana suñu waxantee dëgg président Macky Sall gisuñu ci suñ bopp gisuñu ci suñ bopp de gisuñu ci suñu bopp 2014 ak léegi yàgg na ba suñ jot jonni tey nag lu ñu neex ak lu ñu naqari du tey féeg président Mame Thierno Lo di ànd ak moom ñuy ànd ak moom ndax ñun dañuy gore ba keroog ñuy dee mboolem ñi àndoon ak Thierno Lo démb ak bërki démb tey lañ gën a mën a ànd ak moom tey lañ fas yéene takku ngir ànd ak président Macky Sall mais na ji na na delloo si waat xelam xoolaat waa APD jàppale ñu que nag ku bëggul dara amul su fekkee ne dañ koo waxoon ne ko ñun bëgguñu dara itam waxaat nañ ko tey ne ko bëgg nañ dara ay gone ñoo topp Thierno Lo ay mag ñoo topp Thierno Lo ay intellectuel ñoo topp Thierno Lo bëgg dara waaw dara jooju nag anamu président Macky Sall li ngay séddale sédduñu ci bu fekkee ne dangaa soxla pour ñu laaj leen ne la sédduñu Thierno loo du la ko wax ay gone ma la koy wax campagne bu ñu dugg ba génn ko rek dem nañ ba jeex waroon na noo am ak yow audience audience boobu ñu annulé ko audience boobu nag lan soxla ci ni mu gën a gaawe nga recevoir ni bëgg nañ dara président Macky Sall ndax ñi ngi lay jàppale ku wutut dara amul lu jëm ci ay tali dikk nañ fi ba lotissé ko ba pare ay tali moom mën naa ne féete na de côté lu jëm ci ay forage na ko yokk daaru musi itam am na loo xam ne boo dee ànd ak nit te yëgu ko du ko mën a saafara ndax dañoo génn màggalu daaru musi amuñu lu dul daaru musi amuñu lu dul suñuy kilifa ca jàpp naa ne département Kébémer région de Louga am na ay ministre benn ministre boo xam ne dikk nga benn ministre boo xam ne dikk na daaru musi gii gisuma ko amu ci ba jëpp di ko jàmbat kon président Macky Sall ku mu yónni kon président Macky Sall ku yoon ñi ku bëgg a gañe ab dëkk nag bëgg faa am ndam lam fa war a def dama ko fay def ba mat man duma layaam layaami duma toog ba fii journaliste yi dikk këpp ma seen caméra yi mu leer na ma dana àgg ci président Macky Sall la ma ko war a wax duma ko wax dëkk bii na ko gestuwaat bu baax a baax amuñu lu dul dëkk bi amuñu lu dul département Kébémer tey département Kébémer bii jël nañ ay nit jiital leen ci feeg ñuy continuer di leen ci jiital danañ yeex a am ndam président maam Thierno Lo kenn du moom nit ku am personnalité la nit ku diiñ la nit ku am fulla la nit ku ànd ak ngoram la ànd ak président Macky Sall 2014 ba suñ jot ni tey musta taxaw ak moom ne sama gone yi cëral leen wala bëgg naa dara waaye nag boo toogee bay séddale war a delloo si sa xel ci xam ne ki ngay àndal ponkal la ki ngay àndal am na ginnaaw Thierno Lo dafa bàyyi ñëpp ànd ak président Macky Sall keroog ba Macky Sall di jóge ci Ablaye Wade ñëpp dañ ne woon Thierno Lo dey dana dem ca Macky Sall ñu ne lu tax ñu ne mooy xaritam waaye demu ca ndax ab lay waat Wade kenn ku ne xam ne ni cër bu ñu cëral na ko Thierno Lo ñu ànd di liggéey mu ne damay ànd ak moom rek ba mu daanu wala mu jóg yàlla def la gën Macky Sall woo ko 2014 ñu ànd ak moom ban ànd moom ba léegi bàyyiwuñ Thierno Lo lu xew fii xam nañ ko lii wax ji mooy président Macky Sall na delloowaat njukkal président na loo ñun ñii di ay goñeem dama ne bëgg nañ dara ku bëggul dara amut Ousmane moom wuy yéem moom noonu lay wujjee xam nga Ousmane bi ku ñuy bàyyi cim réew muy circuler nu ko neex ndax heure bu wootee wala mu war a génn wala mu war a wuy ji dana créer embouteillage xale yi danañ ko topp sàcc yi danañ ko topp raykat yi nit ñi danañ ko topp lu amut Sénégal période bii ñu tollu amut ca li fi am barax nag usmaan Sonko dëgg la gu wér usmaan Sonko kon kenn du ko bàyyi mel moom muy circuler dañ koo woo yoon moo ànd ak moom dikk di ko jël si na jaar ci yoon wi ñu ko wax bu ca jaaree am jàmm su àggee génne ay preuve am moom dane woon am naa ay preuve mi ngi nii ma téye preuve yi nag du dem bu demee tribunal génne preuve yi lu njiit njaag usmaan Sonko moo nekkul ci dëgg nekkul ci yoon ca dama ne la senegal gii mboolem kuy saaga rek Ousmane Sonko ngay jàppale.